à avoir peur euh, c'est tendu la situation Sonko mi ngi dangal l'état euh, force restera à la lay wax yéen les jeunes de la paire de la majorité ngeen bu ferez face fan lañ jëm xam nga euh, justement Ousmane Sonko dafa yàq ci réew mi lu bari loo xamante ne ñun sénégalais xamuñu ko woon en réalité nañu waxtaan rek te mhm. waxante dëgg ku ne wut na fi nguur ba am nguur lii amu fi woon quatorze personnes la mort de quatorze jeunes loolu déjà dafa bari c'est trop. jàpp nañ ne nag en 2021. jàpp nañ ne euh, li muy woote nii c'est-à-dire mortal combat wàcc leen ci mbedd mi naa leen fekk et cetera loolu moo indi lii yëpp maintenant nag Sonko il va falloir que les gens lui parce que suñu réew xamul lii. comment l'arrêter booy fàttaliku en 2008 président Macky Sall bi muy créer parti mhm. créer na parti am massifier parti def le tour di Sénégal. ba 2012 mu jël réew mi te li yëpp fekk ko ci woon cela veut dire que tey jii boo bëggee jël nguur da ngay liggéey wàcc sur le terrain waxtaan ak sénégalais yi. moo gën ngeen ko mu liggéey c'est ça le problème. moo gën en fait depuis deux ans moo gën di woote violence di dugg ci lu sa yoon nekkul Sonko en réalité kenn tooñu ko moo tooñ boppam. ci lépp li ko xaman li nga xamante ne dal na ko. quoi que l'on puisse dire Modou moom moo ko yóbbee boppam. làmmiñam la ak tànkam bu demul woon suite bëte bële te bi muy dem waxul ak waxut ak kenn mhm. moom képp moo dem du chauffeur du garde corps am du collaborateur am moom kese moo jël ak coobare boppam jóg ci jamonoy couvre fa dem def lu ko saf. mais le procès il est euh, li ñu ko accusé viol la li may wax ni c'est différent. waa déglul ma ñëw loolu def na ko cela veut tànkam moo ko fa yóbbu donc bu mu tooñ kenn. complot amu fii à quel niveau à niveau leneen li ci topp mooy diffamation yiñ ko euh, keroog liñ yiñ ko jugé fii mm-hmm. yàggul dara diffamé dafa diffamé nit nit porté ko plainte muy diggante ñaari sénégalais muy diggante le ministre Mame ñaar ak Ousmane Sonko ñu dem ci yoon yoon tranché donc cela veut dire que kooku tey mm-hmm. koo xamante ne dafa wax lu dul dëgg diffamé nit ñi euh, sosal nit ñi ba fekk ko ci mu war a fay deux cent millions de francs CFA. Mhm. donc kooku jàpp naa ne waratuloo wax ba sénégalais yi déglu ko. d'accord parce que nag dafa wax a wax a wax fenal nit ñi sosal nit ñi wax lu dul dëgg ba ñu fayee ko ci deux cent millions. donc kooku waratuloo wax ba benn euh, sénégalais déglu ko tey.